politicien nga <laughs> politicien nga te gis naa analyse bi ngay def parce que yaa ngi ci combine politicien <laughs> effectivement li nga wax dëgg la nguuru Macky Sall dafa am ay xarit. yu bari am na xarit yu bari yoo xam man ak ñoo ma journaliste am da ngay ma defal. defal ko sama jabar bi ma nekkee prison. tax na sama mag la. quelque soit ce qui advienne parce que man nag xalal kenn mënu ma defal ci àdduna lu ma amul mais kenn du ma defal lu ma fàtte. te Macky Sall ma defal jàmm. tu comprends donc sama mag la quel que soit les et puis loolu du ko wax ci suuf de ci biti laa koy wax ñëpp dégg ko. Abdoulaye li mu ma defaloon. bi mu nekkee pouvoir sax tuuti laa ko wax parce que daf doon nuru leneen mais bi mu génnee pouvoir bi wax naa ko. parce que nit da ngay dafa juste. mais xoolal <coughs> yow. Birima tu es suffisamment bien placé pour xam ni. mes amitiés man j'ai rapport à la vérité. Mm. parce que risque yu bari man attaque mënoon na ma ci bañ a fekk xam nga baax na ma li ma wax. man yu bari mënu a fekk quoi au fait. des fois sax je me demande ce que je de quoi je mel. tu <laughs> benn prix c' est important li may dem di jëli benn prix Abdoulaye Wade sur les droits de l'homme homme. Mbaye Jean ne ma mais a mën na kaa mën ñu ne sama jarbal da xaw sob quoi. parce que mu ngi xoolal paa bi mu la bëggee te dañ buur bëgg la buur bëgg la xaw ma nga bëgg buur bu bëgg la ak mais yow chaque jour ngay nekk di génne information bi wax lu ci sa yoon ba yow daal sama jarbaat bi xam ne donc man je pouvais ne pas mêler. ah mais xam nga laa gën. xam nga laa gën moi je suis pas d'accord. dafa nang rek dama lay xam nga laa gën boo nekkee ci réew dafa dama lay wax lan mooy sama sensu engagement buuba. man par exemple. journalisme ak analyse li ma ci dugal lenn kese la. man maa mënul nekk ci réew moo xam ne dama fay gis dara te duma ci wax li ma xalaat. mais tey moment bi may wax ak yow nii. sama activité du journalisme. mais mais mais yéen tu sawa ñi ndaar rek ma yi ndaar lañu ne xam nga lax li wax mooy bëggee <laughs> na meroon Sénégal ñaara fi nekk boo meree sànni bu neexee nga ñu raay. mais loolu fi nekk. Cheikh Yérim Cheikh Yérim mënoo dindi mënoo dindi ni mënoo dindi ni. moomoo sa bopp da ngaa bari xarit. ok c'est bon maintenant man xam naa ne meroon na. non mosuma la c'est la c'est la vérité. non meroon na li tax woon ñu la pare meroon na. mais non mais fii. non non non ci loolu am na lu ma waxee. xam nga xam nga léegi s'il te plaît mais tu l'as dit une fois dégg nañ la. et puis et puis et puis genre ah waaw Yérim s'il te plaît déglu genre daaw daaw daaw daaw war a tànn. mais Birima ay a interview Macky Sall man Birima Ndiaye su may tànn su may tànn. maa ngi mais pour le Sénégal. mais mais mais format boobu. bi ko Macky Sall di njëkk a def. mais man maa ko commencé noonu. am na léegi lan moo tax non attends. boo nekkee ci réew. mais Sénégal am na lu mat mille journalistes mais lu tax rotation du am oui évidemment non dafa naa xam nga kii bëgguma personnaliser débat bi moo tax bëgguma dugg ci ay débat mais justement mais yow tu penses que interview rek laa mën a gisee Macky Sall mais ah voilà donc loolu moo tax s'il vous plaît yéen tamit Charles tu as la parole même bokk na ak Sénégal yi xam bokk na ak Sénégal yi xam bokk na ak Sénégal yi xam tëjal ma micro ñoom ñëpp ah bàyyi ma micro ñoom ñëpp mais jeex na. depuis mais depuis sànq maa ngi leen di arrêté leen. su dee su dee c'est comme ça que je peux réguler le débat minimum su dee arme boobu kese moom moo. ay moyens en tout cas moom moo booy nekk fi di mettre ni mu teg sa <laughs> li mu wax j'espère que loolu génn ci dëkk. Charles Abba waaw man du ma euh, ça veut dire euh, mais Cheikh Yérim il a répondu nee na dafa dugg si bopp nit il a investigué dans la tête de quelqu'un il est très fort kooku benn la dafa ne chicanerie <coughs> et chicanerie ça veut dire ce que ça veut dire bu dee tubaab rek la. oui mooy mooy lan. Ah, ah, waaw chicanerie nag mooy say say astuce say say kii on n'est pas bu fekkente da nga toog nga ne ma Mansour Faye mille milliards à lui seul les analyses quand on fait des analyses on met on convoque on met des trucs. Mansour Faye quoi. mille milliards. budget la budget bu ñu jëlee lépp lépp lépp si benn analyse quand on convoque des gens ma maanaam woo ay nit teg ma teg nii par rapport à lu mu yor il a des budgets de guerre pour pouvoir aller à une parce que nous sommes journalistes. Dieu oui non mais je veux dire quand je fais une analyse je vais je dis du ma toog rek du ma du ma nekk à la superficielle damaa dem ba si biir. ku si nekk mën na la ak loo munti am bu fekkente ne yaa ngi fii ba 2024 si kaw loolu lu nga yor budget de guerre la. et donc par rapport à ça ñeneen yoo xamante ne par rapport ak budget yoo yorul mais bien entendu munoo xeex tey boo yoree pétrole. gaz ak fu mu toll nii ak fu ñu jëm <coughs> mais bu fekkente ne ca une ambition présidentielle te ñu jàpp la pour yóbbu la <coughs> mais ah, tu seras euh, difficilement concurrent bu doy si biir appareil ga donc moi j'aurais attendu si biir affaire bi ñu dem ba si biir si biir exploitation de l'analyse même ñu analyser teg ay affaire teg ko si kaw bi mm-hmm. ce qui là où je reste sur quand même deux problématiques mooy benn de nga ne le président est en fin internat nga convoquer la constitution boo xamante ne dafa ne clairement qu'un président de la république est élu pour un mandat de cinq ans nul ne peut faire deux mandats consécutifs plus de deux mandats consécutifs deux de deux mandats consécutifs plus de deux mandats consécutifs waaw mu dem c'est exactement ce que affaire boobu que ay juriste man duma juriste que ay juriste sensiblement près en 2012 conseil constitutionnel taxaw ne président Abdoulaye Wade mun na def troisième mandat <laughs> bi de manière sous-entendue et c'est peut-être loo xamante ne ce n'est pas tellement clair mooy indi et c'est là que j'attends aussi que journalistes yi tant que da nga poser benn question par rapport aux Sénégalais est-ce que ñu leen di dimbali mais que ñu nekk ci benn dëkk ou quand même nit nga toog le 31 décembre am message à la nation war a wax à la nation jël caporaliser toute la presse sénégalaise tout pratiquement tous les plateaux de télévision sur la question du troisième mandat nga xool millions de sénégalais nga waaf. comment waaf. nga faut dire les choses mais moi je dis c'est euh, ce que je dis. waaw yow yow da ngaa far. bàyyi ma faruma yow far yow. waaw damaa far kay. waaw tu es envoyé par des gens ici. des je me le sais. da ngay wax. waaw mais waaw mais Biri. non li mu wax c'est très grave. mais attends laisse-moi laisse-moi waaw waaw man man aw ma problème nga tontu encore que kenn yónniwu ma vraiment quoi kenn yónniwu ma. dans un groupe. waaw encore que je suis dans un groupe. loolu baax na ñu. non non déet. non dafa am loo xamante ne. maa ko wax waa ci am na assume la. nëbbatuuma làqatuuma. mais di nga wax groupe di nga wax sénégalais yi groupe. mais nga wax sénégalais yi mais problème bi du loolu dama ne. bu fekkente ne. Hmm. le problème du troisième mandat jusqu'au chef de l'État mu am koo xamante ne boo bokkee si moom boo ko waxee mu dàq la. <coughs> yow fii sànq laa fi wax nga waas yow tam. ma wax jaar ni ma waxuma ko. Hmm. donc ñu toll fii nga xamante ne ñu toog fii. non mais loolu mooy dëgg ci ñu topp mu mënuñu toog di wax sénégalais que j'en ai fini j'en ai fini avec le mandat pour la seule et simple raison parce que dafa am constitution boo xamante ne moom laa woote sénégalais yi le 16 mars 2016 ma woote sénégalais yi pour ñu dem voter référendum boobu fekk on a dépensé de l'argent quand même pour voter référendum boobu ñu dem voter référendum bi tey ñu noonu muy toog on ne peut pas me regarder moi sénégalais avoir du respect pour moi pour me dire que j'en ai fini avec mais man si je suis du côté de la vérité man s'il y a un groupe boo xamante ni moo ma tax a jóg c'est le côté vérité la parce que bu dee Macky Sall bii dem pouvoir en 2012 bu dee ñu ko fal man. Charles Gaston Madela ak Charles Faye ah lu ma si xam a compris voilà ça c'est la vérité. allez non mais mais jàngat ci li sous-entendu bi parce que man sama jàngat bu njëkk ci li euh, président Macky Sall ak Amadou Ba ça va loolu laa ci jàng ah. ak Mimi Touré ça va pas. c'est mon c'est parce que en réalité. lan moo. ça va très bien waaw mais non mais biir ma doo ma déglu ma wax. walaay li muy wax mais man maay wax bàyyi wax. li ma wax man lay wax mais non waaw après nga wax li la wóor mais may ma ma wax li may wax dama ne ci li Cheikh Yérim Seck wax. ah li ñu sundur naan les waxul man les waxul bi laa convoqué quand aujourd'hui nga génn nga site nit yooyu man li may njëkk xalaat mooy ah. te loolu bëri nañ ci de kon de président Macky Sall ak Amadou Ba ak Mimi Touré ak ñoomin seen wóoluwu leen parce que c'est ce que ça veut en réalité mooy que ñu ñu wóolu dëggantaan ñooñu bokkuñu si te loolu li tax affaire bi def tole li tax sorti yërëm yërëm bi gars yi wax si ñi mu tuddul moo tax pas ñi mu tudd rek te loolu il faut que ñu taxaw si. Mm. merci.